affaire la du yoon dañoo war a bàyyi nit ñi liggéey xam nga li bàyyi mooy loolu dañoo sonal bàyyi Fall waaye saa li bàyyi yàlla sax dégguñu li bàyyi waaye affaire bàyyi daf mel barki Serigne Sall li di daj nii buñ ko dajal ci mbedd bi léegi ñu ñàkk a déggoo ma Sall léegi ñu may nu jàmm barki alxuraan xoolal gars yi liy daj ci mbedd bi kon fii ba fi ñuy dox kon nga war a ah nga war a man fi gi laaji bi man garaawul studio laa yor mais bi daa li daj ci mbedd bi nii liy daj buñ ko dajal léegi may ni koy Sall may nu jàmm xoolal gars yi liy daj ci mbedd bi yow imagine màggee tey Dakar lañ dawee ba fii. aywa fan ngay woon ñun Pikine la ñuy ñibbi fii. waaw mais eh, Dakar lañu 18 heures ba léegi lañ dee barke Serigne Touba xam nga lii dafa métti quoi barke Serigne Touba nañu geesu waaw dafa métti quoi billahi la ngay wax mais eh, nañu geesu du ñëpp am ay waruwaay barke Serigne Touba nañu geesu quoi waaw ñun képp les sar ñoo ngi bëgg a ñëpp ñu ñëpp kenn xam nga fu na sal li métti na dañu dañu sal dimbale dañu sal dimbale ngir yàlla dëgg métti na Sall la ngay wax Macky Sall bay mag xoolal lii xoolal sànq sama téléphone bi dama kaasa kaasa kaas xaaral rek ma wala barki Seydina xoolal sama téléphone nga wàcc ba réer barki yëlun di yàlla bi lu ma lu ma du tof de 17 heures ba léegi maa ngi ci yoon bi 17 heures ba léegi maa ngi ci yoon xoolal lii bi am nekk vingt et une heures te pare goo bu la fekkee ci muy def dem yoonam na dem fii corona wuñu man ki dem ba jaay dañu ma na ma da ngaa corona ba léegi maa ngi nii de. loolu it ma da ngaa corona ñu boole ma si ñi kii ñu ne da ngaa corona. man Fallou Faye. Fallou Faye jàmbaar ñu lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar Fall. ñu gis ne ah situation bi ngi fi bari ba léegi ñu lay laaj. yow mbërë nga. xoolal affaire yi sa waay ni mu demee xoolal lii xoolal lii. mais bu ñu ban sens la fan nga war a dem. ñu ngi jógee Medina fii ba Pikine depuis dix huit heures ba léegi barki alxuraan benn soog bu moo am rek affaire yi a kii surtout démb ak tey barki alxuraan toujours bi benn njariñ barki yu baax. fekkoon na ngeen koy dundee. njariñ waaw teer bi ñu dem nii benn njariñ xam nga li nga def ci terre bi doo jël def ay yoon bi fay gars yi ñu defar la yoon yu baax ñu mën a ñibbi gars yi. léegi vingt et une heures bu la fekk ci yoon bi noo xëy. fekk ci yoon bi xama tamit moo tax sedd bi ak lii bi tamit neexul quoi il faut nekk obligé xama dagg lu bari pour mën a kii mais neexul ci xol quoi tamit ñu lay jaajëfal macha allah saa yi nan ngeen dundee affaire yi circulation bi ni ngeen am affaire circulation bi dafa métti trop dafa métti trop gis naa même benn oto moo gaay moo moo ko accident benn ah, benn soog bu am ah, daaw benn soog voilà dafa am benn soog bu garaaw loolu bay yëpp couvre-feu bi couvre-feu vraiment métti na trop wala ok ñu lay jaajëfal jàmbaar ñu lay ziar. ñu ngi dolli ziar baay. nga tuddee circulation bi ne ak ak tamit nga wax ci bëre. non franchement ñun dañoo yor moto ñun amuñu benn problème mais boo demee sa sa suñu moromu yaay ak suñu moromu papa franchement seen dafay daw. Macky Sall li religion on n'est pas dans un pays démocratie lii amul démocratie franchement on en est marre quoi dañu xool benn solution mais fii amul coronavirus. autoroute baa ngi nii kenn amul foo jaar. verdir leen waaw waaw mais après nañ ñu rey. wala yërmande si sénégalais yi barke alxuraani karim dafa war a am yërmande si sénégalais yi suñu xol yëpp ñoo ngi ba fële nit ñi a a nekk lii ñu nekk a mais xoolal xoolal Padois. waaw dem Padois ay kilifa ngay gis ñuy taw. barki Serigne Touba ay kilifa. weer mét yi fekk ci yoon ni muy. ñun moom sax garaaw Bamba ragaluñu loolu. man laa rek ragaluma loolu man dem si péage bi laa jaar dem sama yoon. gis nga lii dafa ñaaw xoolal nit ñi xoolal nit ñi xoolal lii. waaye lii waaye mu ngi mel ni xoolal ñu nekk si guerre ñu nekk ñu si guerre sa waay. troisième mandat amul dara waaw. métti na bu la fekkee ci yoon. waaye du yoon ma digga moom rek. nga xool loolu dara gaay naa ko seet. Malakana Birame. delloo siyaar. tur bi naan. man Ema la. Ema ñu gis ne instant circulation bi ngi taxaw te vingt et une heures ku nekk da laa fekk billaay wallaay metti na suñu yaay suñu papa yi ñu ngi di sonn xam nga waaye te mënuñu leen yëpp ci moto yi amuñu benn solution nañu dimbali ngir yàlla war a suul Macky teg bagage yi yoon ñun ñëpp ay ndaw lañ bëgg nañ liggéey. ba Kër Massar au fin fond ba Tivaouane Peul. boo war a ñibbi ba Tivaouane Peul ñu lay laaj bu la 21h fekkee ci yoon bi noo koy dundee ak gars a ah gars yi dañuy nangu suñu machine yi dee duma ñu ba bëgg a dee mënuñu si dara loo si mën dañ lay laaj këyit ñu ko jox leen leneen loo leen laaj gars yi saa mënuñu si dara qu'on dise la vérité nañu dimbali ñu lay laaj. xoolal heure

Yani hani Fırtan kendi kutusu var. Fırtan kendi kutusu var. Oğlum ne işin var? Ya salam quoi. Ya salam. Benn gineer, benn gineer bi ñu dugg seen kër man pour lan. Mais gars ne, mais gars ne li ngeen bàyyi tali ñoo di bañ a jàll quoi. Loolu ñu bari ñu tali pour kenn bañ a jàll. Kenn bàyyi ñu kenn bàyyi ko, ñu bari jàll nice. Ñu bari jàll. gars bu leen ah, euh, franchement man déception laa ci am lii moom foogee woon naa lépp ba mu des lii man je crois même que euh, benn ballon de sonde la bu président bi sànni euh, pour xool ba xam population bi nañ ko accepté comme ça bu bëggee def forfaiture am troisième mandat wala dara mu ne waat gaa tëdd leen gaa tëdd parce que lii amul benn effet bu muy def pour lutter contre le coronavirus déjà bus yi yi bàyyi nañ ñëpp ci duggandoo duñu vérifier ku takk masque dul takk masque classe yi classe bu nekk dem plus de soixante quinze élèves plus de cent élèves ñëppay toogandoo ñu ne léegi day jël privé nit ñi seen liberté de vingt une heures à six heures du matin amul benn sens amul benn impact ci fer ci ci fer bi pour man dañ ko def dañuy tâtonner rek. ñëpp daal ñu ngi koy naqarlu instant yi nii parce que foo génn nit ñi wax bi rek la ñuy wax quoi. c'est que lenn dafa am sax gis nga nañu fàttaliku démb quoi gis nga temps bañ fi defee couvre-feu franchement parler ñu bari si lañ jaaree dee mag ñu bari si lañ jaaree dañu faatu dëggantaan nañu wax quoi li am parce que am na ñoo xam ne seen yenn parents yi pour ñu dox nii woon sax wala ñuy génn nii sax da doon metti dañuy ànd ak ñoom daan ko daan gunge pour mu dox tuuti mais loolu yëpp amatuñ ko ñu toog ñëpp dañoo jaaree noonu dee da ngay toog ba si yàgg ñu ne la waa ji dem na dem na moo fi war ñun ñu dund dund boo xam ne léegi lu neex tubaab bi la parce que fii dañ fi gisul benn feebar boo xam ne sonnal na nit ñi sonnal nit ñi ba nga xam ne nit ñi dañ ciy gis seen bopp bu dee tubaab bi la sax waaw mais fii doo fi gis benn feebar bu xaw a sonnal sonnal gars yi ba ñu naan dañuy def ay couvre-feu nit ñi waxuma la sax julli bu normal sax dootoo ko mënati quoi léegi affaire bi c'est trop léegi ñun bien que dañ doon wax feebar bi am na amul am na amul mais nit ñun sénégalais en tant que ñun africains yi nii ñun mën nañ ko dund di ci vivre normal mais nii bu ñu ko defee te nañu xool population Sénégal majeure partie bi tuuti ñoo ci nekk ay fonctionnaires ñi si des ñëpp ay ouvrier lañ te gars yi yëpp dañuy fartaatu di ut lu ñu yóbbu seen kër ñi fonctionnaires yi rek ñoo ciy toog seen kër après ñu leen di fay normal mais majeure partie bi ñu desaat ñëpp ay ouvrier lañ ku ci demul uti ji doo am loo yore sa kër. ñun moom président bi wax fa dëgg ne yàlla ñun dañoo bëgg a couvre feu vingt et ba six heures du matin ba six du matin. lan la mën a def ci corona bi ñun loolu moom bëgg nañ mu leeral lañu ñu ko loolu lan la mën a wàññee corona bi vu que nit ñi 6 heures du matin la ñuy xëy def seen i activité ba 21 heures actuellement seddaa lañ ne ñun actuellement sànq dañoo génnoon dem di ay kii mais fu ñu dem ñu ne ñu tëdd nit ñi tëdd nañ dèjà bu dul couvre fa sax nit ñi 21 ñu dem tëddi te corona bi boobu mi ngi ñëw kon dañ ko bëgg a laaj ñun diggante 21 heures ba 6 heures du ban ban kii lay def ci effet effet lay def quoi pour corona bi wàññeeku. ah état état dafa war a xam ne ñun li ñuy dund état ñu ko ñun li ñuy lekk ñoo ko yër suñu bopp da ngay jógee Dakar vingt heures balaa nga agsi Pikine vingt deux dafa bari ci yoon bi état avant muy jël benn matukaay dafa war na sóoraale loolu bu dee vingt trois heures sax baax na vingt et un dafa am li ñuy li ñuy am li ñuy liggéey ñoo koy jox ñoo koy jox suñu bopp état joxuñu dara ci lépp nag amul état lu ñu defal doon ñu bara ñu ñu yorente suñu bopp liggéey suñu bopp comprendre nga am ñoo xam liggéey gudd lañu yor yaa dégg dafa war a jàppale doomu aadama yi balaa moo jël benn décision mu ñoom seen affaire baax na pare balaa ñu jël benn décision ñu war xalaat doomu aadama yi xalaat nit ñi xalaat banlieue bi yi rek ci banlieue bi am ñoo xam Pikine la ñuy jógee dem di liggéey yi Dakar dafa métti ci ñoom am ñoo xam ñu ngi liggéey yi Dakar dafa métti ci ñoom dafa dañoo jógee yëmbal ñuy waa di jógee ñu xool ñu ne ville rek dafa métti ci doomu aadama yi trop dafa métti trop trop nañ sóoraale doomu aadama yi nañ dimbali nit ñi di xool nit ñi fi ñu nekk ni dafa metti non man loolu laa xamul fan la ko teg Macky Sall laa xamul fan la teg loolu fan la teg couvre fa fii ndaw yee ngi nii liggéeyuñu gisuñu dara loo xamante ni tey dafa fees suñu bët nga xëy xëy rek ne da ngay def couvre-feu loolu pour lan la. naan vingt et une heures six heures du matin mais léegi ak dëkk bu metti bii ñun fan lañ jëm ñun. waaw président moom bu defee couvre-feu rek xamal ne loo xamante ne nii moom yoon la parce que réew mi moom lañ ko teg si loxoom lu muy daj ci suuf ñun xamuñu ko léegi nag dañuy xaar rek ba xam dina génnee résultat wala mais su demee noo xamante ne nii. kenn gisu ci dara dañuy sonal rek parce que nit ñi dañoo war a dund am na ñuy dund ñoo xamante ni basuñ ci président bi nañ leen xalaat waaw parce que ñi basuñ ci président bëriwul de instant bii nii lu ma la mën a wax parce que nit ñi lu ñuy xalaat mooy ëllëg lu ñu yóbbu seen borom loolu la ñuy xalaat instant bii nii nit ñi nag moo tax seen soxla yi ku leen ko arrêté loo rek war nga ma lu am njëriñ moo war tax nga arrêté loo leen ko. baax na si ñu xam ni mën leen teel wàcc. mais baaxul ni si ñi xam ne dañuy guddee wàcc te couvre-feu maanaam am na yenn jotaay yoo xam ne bari da koy da koy da koy effacé suñu sañoon mu mu bàyyi couvre bi def état état comme ni doon defee masque yi loolu moo ñu gënal. en tout daal boo fekkee ne loolu loo xam ne lu am la métti na te wax dëgg yàlla man mii taxaw di silmaxa di arrangé wu ma ndax man silmaxa laa te mag la waaw ah, ba ma ba ma xam ne ba tey màggal rek moo doon sama métier aw ma leneen lu may def yalwaan naa ba màggal màggal naa fi ne te maa ay feebar yu ndaw yoo xam ne fi mu toll nii su ma yalwaaniwul am na garab yoo xam ne moom la war a génn su ma du ma ko am te man sama heure yalwaan heure ngoon la te man heure bi nga xam ne moom laa dégg ne moom ci gars yi ne benn moom la ñuy def couvre-feu bi vingt et une heures man man ndax vingt et boobu mooy sama digg màggal ndax man heure heure heure boobu heure boobu lay gont kon loolu arrangé wu ma wax dëgg yàlla. mooy président réew président tous les sénégalais mais couvre-feu man gisuma sens am gisuma njëriñam parce que tamit njëkkoon nañu ko def kaay di gën a di évoluer waaw man daal gisuma benn sens am parce que couvre-feu moom boo ko defee gaa yaa ba tey kenn taxul masque gaa yaa ngi bii si école yeeg lépp mi ngi continuer di am. mais ñun buñ fi nekkee pour aar ñi xam nga sénégalais ñun en tant que boo ko waxoon ne da ngeen la ñuy a ngeen ñëw foofu boo xoolee ñun dañoo tàmmoon benn affaire boo xam ne dix heure et demi la ñuy ñëw mais loolu tamit danga koy xool ne ni ngay dundee say njaboot da ngay xam ne nii laa doon dundee ak ñoom mais bul toog nii rek tey créé naa benn affaire benn dama koy ci saa si am na ñoo xam ne bu ñu yeewoo bu ñu nee six heures la ñu war a liggéey cinq heures du matin la ñu war a jug pour dem seen yoon si no dañuy tardé ñu si bari ñoom xam na ko te boo tardé nan la ñuy mujjee mais ñu bari am na ñoo xam ne ci ci corona bi lañuy ñu bari lañ ñàkkee seen liggéey. ba tey liggéeyatuñu parce que dañoo dem wàññi ñëpp kenn dootul demati dooto amati heure boo kii mais nañu bàyyi xel population bi ko jàpp ni di dóor moom war na yaakaar naa vingt et unième siècle bi nit waratul jàpp ni di dóor jàpp ni di dóor. defoon nañ ko bee passé. waaw mais ah moom presque ñun suñu homme de tenue ñoom tamit ñoom ñoo war a gën a comprendre population bi puisque des fois fii nekkuñu États-Unis nekkuñu France moyen de transport yi dangay gis koo xamante ni day xëy dem liggéey ñu ne couvre-feu vingt diggante balaa 19 mu wàcc 19 heures balaa moo bu waree jugee Colobane waree ñëw pikin balaa moo yegg si fii nii 22 heures jot wala 23 heures ndax tali bu xat léegi mu wàcc dox war a dem ci kër njabootam nga dajeeg moom di ko dóor ñoom policiers yi si jëmu boppam ñoom war nañ comprendre nit ñi xam ni Sénégal lañ ne. waaye nit moom ki ñu ko dóor ndax doomu aadama moom ki ñu ko dóor nit ndax boo dóoree nit ba am nga sa kër te ko comprendre ko da ngay bàyyi doomu aadama bi nga dóor nit ñi ñu dóor léegi ah man de ko boo dóor man ah dóore non dóore moom xewul Sénégal du yoon yu dóor kenn moom. mais sa doom sax waratoo ko dóor balaa nga kaa def dara nga koy woo yedd ko dóor dafa amatul ci àddina fii kenn waru fee dóor kenn magum jëmm nan ko koy jàppee dem ut liggéey pour dimbali ay waajuuram ak ay doomam pour yóbbu këram. naaje wàcc nga jàpp ko di ko pompoloo naan da nga koy dóor tegul fenn. dem dañuy tëddi parce que tamit <clears throat> policier loolu rek la ñu yàqam di amu amuñ amuñ dara lu ñuy def parce que quand la du maam góor waxoon di lekk ceeb bi rek dañuy yàqamte instant yi nii ñamal gars yi xiir parce que defuñ dara quoi amuñ lu ñuy lu ñuy def moo tax couvre-feu ñoom bu ñu ko waxee dañ siy kontaan ndax am na lu ñu mën a def quoi mais duñ duñ leen xaar quoi ñu dañuy dem tëddi balaa ñëw dara lu fi amoon ci Sénégal lu ne mën naa amat ndax comme amoon na rek mën naa amat waaye ma xamal ne police yi seen i seen i seen i seen i jarbaat lañ fi nekkal ak seen i rak ak seen i mag ak seen i seen i waayjur kon war nañoo te ci mbiru te xam ne xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lan ñu dawal yërmande te dawal luwaa te dóor luwaa wax dëgg yàlla man xaw musuma fis fenn texte fuñ ne dóor luwaa la wax dëgg la demal ci marché rek yow école yi sax nga wax demal ci marché yi demal ci gaar yi demal ci kii yi mu tudd garage yi nit ñaa ngi dem dem leen te dikk bi nit ñaa ngi koy def nu mu neexee léegi ci yooyu la waroon jëkkën a xool mais pas ci ay couvre-feu yi mais ba léegi nit ndaje ngi am nit ñee ngi def marché ku nekk école yeeg xale yee ngi xëy di jàngeek xam nga nit ñee ngi dem marché ak nit ñee ngi dem fu nekk mais loolu noonu lan la ñu mën a xëyee rek ne couvre-feu mais yan kaa yan cas laa bul xam yan kaa fii man xaw ma ko corona mu man man ñi ma xam fii rek bëri na yow ñi nga xam fii bëri na keneen ak keneen kenn mësu fekk gis ko corona mais pour lan la loolu pour lan. secteur yu mu laal bëri na secteur yu mu touché c'est énorme certes c'est vrai mais tey yaakaar naa ne nit ki boo amul santé tey doo am euh, doo am kattan bi nga xamante ne moo lay permettre nga liggéey mbisaan euh, ba pare dafa am li nga xamante ne moo graaw ñun demoon nañ ba stade bi nga xamante ne demoon nañ ba amatuñu cas ay un pour cent la ñuy doon am. voilà ñu ngi justement kon police Thiaroye après ñu yeggali lu ñu doon wax. ñu ngi kon euh, police Thiaroye yi fii aussi noté woon nañ fi quelque tension dañuy dugg ci biir dañuy dugg dañuy dugg ci biir normalement donc maanaam ma bàyyi leen ko voilà Mbissane euh, toujours accompagné du préfet de Pikine moom nag actuellement wàcc na. Euh, la situation e l'état du dispositif et vérifier l'effectivité du respect de la mesure par les, par les populations. En tout cas, moi, le commissaire Camara, commissariat d'arrondissement de Tcharoy, euh, les gars ont deux mois depuis le début de def Il guddi boobu vraiment, tant qu'on a tout dit. Mais l'union de Tcharoy, amul parce que ñu ne Thiaroye euh, dañuy attaqué commissariat de Thiaroye wax dëgg yàlla amul parce que man jour boobu dama nekkoon guddi boobu dama nekkoon sur la euh, côté Tali jalo ak les commandants nous avons laissé dañu bàyyi fii benn base arrière bu xale yi commencé ñëw ci lañu ñu sama euh, mes éléments génn di dàq leen voilà vraiment amul benn xeer amul benn yàqu-yàqu fi commissariat Thiaroye lu ñu doon wax ci information. c'est une fausse inter information amul guddi boobu jàpp nañu fukki nit mercredi jeudi yàlla def nañu aussi ñu commencé di euh, sànni xeer taal ay pneu côté Tali Diallo ak euh, yeneen quartier yi ñetti mbaar jàpp nañu tamit ñett démb laa leen defeere ci parquet de Dakar de Pikine donc lu ñu doon wax ci Thiaroye wax dëgg yàlla amul dara suma nit suma élément kenn yàqul kenn amul gaañuwaay kenn amul ay yeneen métti vraiment taxaw nañu liggéey nañu ba ñu taxaw tem donc vraiment maa ngi leen féliciter ils ont été très courageux et encore professionnels. police yëmbal il paraît loolu la ma man waaw police yëmbal ñu ñuy arrêté peut-être. parce que seen liggéey aussi la ñuy c'est normal que bu ñu euh, gisee ñu laajte carrément ñu euh, rek nan la. ok donc c' est ça waaw donc may nañu police yu yëmbal euh, bon d' premier jour bi xawoon na indi tuuti problème parce que peut il ne comprenait pas mais deuxième jour on a pu sensibiliser waxtu ñaax ne leen waxtaaneen euh, le chef de ak euh, bajjani gox yi ñu expliqué xale yi moo tax mu waral lii déjà vingt et une heures ñëpp ñëpp da ngay respecté sa bopp njëkk yi ñu doog laa respecté waaye taxawaalu ci mbedd mi ñu lay jàpp di la pompé loo ko yu ne moom nit war na ko muccal boppam dëgg yàlla ba tey euh, gis nañ fi beneen montage euh, bu Kunta ñu ngi fi fan la ñu ngi ba tey si yëmbal station ñu xool situation bi fii euh, dans ce cas vous allez vous allez au commissariat pour saisir le le, le commissaire là pour le moment pour le moment, la situation est calme. On veille au grain et aucun incident n'a été signalé. Quoi. Donc ici, dans notre secteur RAS. Quoi. donc euh, ñu ngi fii juste tournalu tournalu Malika waaw tournalu ba ma juumul sax fii mooy tali bu xonk. ci banlieue bi ah en grand. fii mooy tali bu xonq fii mooy tali bu euh, terminus. terminus terminus bu Malika kon foofu la nekk. le dispositif est en place. le dispositif est en place tous les éléments en place. voilà on aussi que la population de Malika respecte le couvre-feu depuis le début. voilà à 21h tout le monde euh, toute la population se replie dans les maisons. aucun problème à signaler dans notre secteur là. En wolof bon. Euh, par rapport ak communication bi. waaw loolu li nga waxoon la rek. Hmm? commissaire dégg nga lu mu wax. Hmm? waaw waaw waaw. Hmm? donc euh, on est à donc euh, fii moom aussi euh, amul lu ñu fi nemmeeku ci incident. gis nañ ne alkaati yi takk der yi force de l'ordre yi ñu ngi occuper les grands axes mhm. mais également ñu ngi def ay patrouilles di dugg ci secteur bi mais globalement nemmeekuñ fi loo xam ne nii niroog na ak incident gis nañ ni aussi askan bi ñu ngi respecté le couvre-feu heure bi ñu toll gisaguñu kenn mu nekk ci mbedd mi donc loolu ñu ngi ci gërëm alkaati mais aussi di ci sant askan bi bi nga xamee ne nii xam nañu njëriñ bi nekk ci respecté couvre-feu bi donc euh, voilà le secteur il est bien tenu comme on dit nit ñaa ñi nga war a respecté ñi ngi toog euh, seen kër ñi koy wéyal di ko jëmmal muy alkaati yi aussi ñi ngi ci mbedd mi nemeeku wuñ fi dara daal donc fii ñi ngi sant yàlla bu baax tout se passe bien. ñu rek mais maa ngi woon ci ndaw ñi mhm. ndaw ñi borom xam-xam yi dañ ne gaa dina leen dal waaye du leen tëral mhm. mais aussi ndaw boo gis am na mag bi nga xam ne ni bàyyi nga ko sa kër. te aussi nee nañu mag ñi lay gën a lor ak ñi nga xam ne nii dañoo am yenn jàngoro yu ñuy doxantuwaaleel mm-hmm. jàngoro yooyu bokk na ci jabet bokk na ci tension mm-hmm. bokk na ci yeneen ak yeneen ak yeneen fii aussi mooy Kër Massar mm-hmm. Kër Massar aussi di gox boo am solo ci bale bi ci département bu pikin waaw département bu Pikine ah au début coronavirus bi yëkkati woon na fi jàkkare parce que bu ñu demee ci kanam na la da ngay gis Euh, matin bi day fees del day bëri nit loolu nag juróon jàqare bu doy doy waar ba mujj bi dañ faa ah. tere woon ñu fay lal au début du de la crise sanitaire mhm. waaw moo taxoon mu juróon jàqare muy aussi gox bi nga xam ne ni gox bu rëy rëy rëy la voilà dafa mel ni nañ bisaan ñu wàcc rek xool situation bi avec euh, le commandant mel ni moo nekk ne di ñëw ni ñu koy gisee ci image yi chers

dans pratiquement tout le département pour voir un peu le dispositif mais également s'enquérir de la situation et du respect de l'effectivité de la mesure euh, prise par Son Excellence le Président de la République. Donc euh, je suis avec quelques organes de presse, vous pouvez livrer ce que vous avez constaté sur le terrain. Donc nous intervenons à Kermassar dans le cadre de l'application des mesures du couvre-feu. Euh, dañ ci nekk tey pour euh, sàmmanteeg ndigal yi suñu kilifay jël lu waral couvre-feu bi maanaam euh, nit ñi war ñoo dem dëkk dikk bi ak ñuy war a doxantu yëpp dañ ko dañ koy dakkal diggante juróom benni waxtu ba 5 heures du matin donc ci loolu lañ nekk fii léegi ñun ñoo fi nekk tey. donc tey boo gisee suñu disponibilité fii dañoo am ñoo xam ne dañuy taxaw di saytu oto yi ak tamit ñoo xam ne dañoo taxaw di naan nit ñi waroo leen euh, doxantu ba waxtu bii nii am ñoo xam ne nag ci oto yi la ñuy nekk ñoom ñoom seen i seen i seen i seen i rôle seen i mission mooy dugg ci dëkk bi di xool ba xam couvre fa bi respecté nañ ko ci biir koñ yi ak ci biir euh, gox-goxaan yi voilà donc loolu lañ nekk di def depuis loolu ñu ngi koy def biir Kër Massar nag daanaka commandant de brigade bi moo nekk nii Euh, ñi nga ak moom travers renseignement yi ngi jot ci xale yoo xam ne dañuy dugg ci koñ bi di di lax ay pneu wala en tout cas di di def comme ñeneen ñi ngi defee mais boo gisee depuis lors ça se passe bien on est sur le terrain ñi ngi ak euh, euh, ñi ngi jël suñu matuwaay daal. salaamaaleykum man maay colonel Ibou Wathie man maa yilif gendarme yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci région de Dakar comme ni ngeen ko xamee ñu ngi koy wooyee légion ouest. Euh, bu ma fàttalee un peu euh, ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars euh, li ñuy wax coronavirus ou en tout cas Covid 19 dafa xawoon en tout cas gagné réew yi yëpp rawatina fi Sénégal loolu poussé woon nag autorités yi ñu jël ay matuwaay jël ay mesures yuy permettre en tout cas ñu éviter mu gën a law ñu koy wax état d'urgence boo xam ne dafa ànd ak couvre loolu nekkoon mesure boo xam ne en tout cas euh, dafa ànd ak ay restrictions euh, en tout cas jéem a wàññi un peu déplacement nit ñi ci biir biir dëkk bi ñu def ko dem ba ci digg bi affaire bi wàññeeku ah naturellement pour ñu mën a bàyyiwaat nit ñu jël seen activité ñu lever mesure yooyu mais bu ñu xoolaatee xam ne aussi moom peut feebar bi dafa dellu si waat mois de janvier même autorité jalaat encore ay motuwaay la nga xam ne moom lañ defoon ba maîtriser situation bi ñu tegaat ko. Euh, pour gën a maîtriser encore li nga xam ne mooy. walante bi euh, colonel Ibou Wàcc moom moo yilif euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci département bi. donc ñu ñëw moom tamit mu doon def patrouille. Mm-hmm. mu tase fi ak préfet mu rafetlu ko bu baax. Mm-hmm. ñu nit ñu rafetlu bu baax taxawaayam ndax boo yónnee ay ndaw. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee day baax ngay dem di leen saytu. mais lu mu wax dafa important Kër Massar ñëpp xam ñu dafa rëb. comme yëmbal ak Pikine. Euh, bëri ay tension mais euh, nee na début bi métti woon na mooy première jour ak deuxième jour mais troisième jour bi ak euh, tey nemeeku nañ ne am na stabilité am na calme amul benn problème 21 heures fekk na ñëpp ñu fatu mbisaan ñu nekk nekk situation bi nga xamante ne bu ñëpp defee comme nii comme comme waa Yëmbal Pikine Kër Massar donc je pense que ni coronavirus bi dina fi fa jóge. toujours yu ma jël noonu. la am droit jël te amul avalu assemblée nationale mhm. sinon lu mu ci nar a yokkaat rek il faut mu am avalu assemblée nationale te am na benn loi projet de loi bu ñu dugal assemblée nationale googu da koy may latitude mu yokk ko ba am un mois ba ci un mois nga xam ne nii du consulter assemblée nationale mu décréter couvre-feu bu urgence amit sanitaire amee comme lu mel nii crise sanitaire wala catastrophe yi yenn yi donc mu euh, euh, décréter couvre-feu état d'urgence un mois. Mangom Sow. nee na personne ne cautionne le comportement de frondeurs mais lii amul benn sens pourquoi ne pas faire ces patrouilles au milieu de la journée pour ne pas que les personnes se rassemblent dans les marchés les arrêts de bus et autres euh, je suis Moustapha Ndiaye préfet du département de Pikine Nous venons de faire une tournée dans la banlieue en cette période de couvre Qu'est-ce que vous avez retenu après cette tournée? Ah, waaw tey dañu dama jëloon décision euh, dem ci biir département bi xool li nga xam ne nii noon la couvre-feu bi tëddee ci biir département bi euh, mais également xoolaale nemmeekuwaale ñi nga xam ne nii ñoom ñooy les force de l'ordre euh, nan la ñu taxawee ak seen taxawaay ci biir département bi ci pour faire respecter cette mesure la alors bi ñu defee tournée bi gis nañ ne partout fu ñu jaar jaar nañu def nañu département bi pratiquement yëpp dem ba Kër Massar vraiment gis nañ ne nit ñi waa Pikine en tout cas euh, ñi li nga xam ne nii moom la chef de l'État décrété muy euh, couvre-feu de vingt une heures à cinq heures du matin ñi ngi koy respecté loolu aussi ñu koy rafetlu di leen ci encouragé di leen wax ne rek euh, noonu la naam ci bu bisu bu njëkk bi amoon nañu nemmeeku nañu woon ne am na yenn euh, xale yuy jógoon di wane ne ànduñu ci waaye loolu aussi euh, ay euh, incidents yu ñuy regretter la mais également ñu ma félicité waale les forces de l'ordre yi nga xam ne ni fekk nañ leen ñu am ñu téye axe yi fekk nañ leen ñuy def seen liggéey taxawaay temm ne bu lii nga xam ne nii moom la chef de taa bëgg ñu fexe ba mu mu nekk ci biir département bi euh, tax na aussi ñu dem fekk ji leen fi ñu ne waxtaan ak ñoom laaj leen mais ñoom ñëpp képp kuñ ci laaj nee nañu daal globalement couvre-feu bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy respecté fii ci département de Pikine amul benn incident à yi ñu jotoon am ci premier jour bi mais depuis lors comme on dit situation bi maîtriser nañ ko globalement nga ñu may ma aussi ma gërëm leen ñoom xam ne def nañu euh, liggéey bi de la manière la plus professionnelle parce que euh, naam amoon nañ ñu jéemoon jóg dal seen kaw mais ñoom ak seen dal ak seen professionnalisme fexe nañu ba euh, dara ñaawu ci fexe nañ ba amul lenn benn mbir boo xam ne nii dinañ ko ci dinañ ko ci regretter donc tey aussi ngeen may moom ma gërëb leen rek sant seen chaîne bi ndaxte man maay président comité départemental de gestion des épidémies te dañoo def benn plan d'action boo xam ne dafa am benn volet bu am solo muy volet communication tey yéen bi ngeen ñëwee ànd ak man à travers votre euh, chaîne di ngeen ñu may ñu dérouler une partie de notre plan d'action la axé ci sensibilisation waxante ak nit ñi ne xam ne ne ñëpp jàpp ne ni nga xam ne nii moom la président bëgg muy décréter couvre-feu euh, njëriñu askan bi la ndax bu ñu toppee digtal yi nga xam ne nii tëbuñu rek jël ko waa kër docteur ñoo saytu ba xam ne fii mbir mi toll bu ñu limité wul déplacement yi bu ñu limité wul contact yi dinañu dem ba mu ëpp loxo te bu ëppee loxo aussi ñun ñëpp lay lor. donc vraiment ñi ngi ñaan population ñu gën a continuer di respecter l'état d'urgence la di respecter couvre